te moo ne ku ko sant mu dolli la la in shakartum la azidannakum ñu ngi koy sant di ko ñaan mu dolli ñu cant gi ñu koy cant nag mooy am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem lu tax ndax daaw ci heure bi toogoon nañ fi def lu ni mel mu mayaat ñu ko ñu bokkaat ci jaam ñi nga xam ne ñu ngi toogaat di ko defaat te ànd ak loolu yëpp xam nañ ne am na ñoo xamante ne feebaruñ daara dalu leen dañoo jékki rek ñun sax ñoo leen gën a yées ay at wala sax ñoom ñoo ñu gën a yées jékki-jékki rek suñu boroom jël leen te defuñu loo xam ne lu tax yàlla jël na leen ñun tamit defuñu loo xam ne lu tax yàlla bàyyi nañu fi bañ fekkewaat koor gi lu ci mën a am daal mooy cant daal kenn la ñeel muy yàlla moo xam ci lu neex la moo xam ci lu naqari la ñu ngi koy sant moom yàlla di ñaan mu dolli ñu mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak jëm waaye di leen beral nuyoo nag ci seen bu màgg bu tedd bii ngeen xam ko muy Mindiss TV nga xam ne baaxoo na lii at bu jot lii de wax dëgg yàlla du guléet at bu jot danañ ñëw baaxental ci lii nga xam ne mooy koor gi ñu waxtaan lan mooy koor ak lan mooy ngëneelu koor ak li nga xam ne moo war ci koor ak li nga xam ne warul ci koor ñu ngi sant bi yépp incha allahu taala mbokk yi nag koor jaamu yàlla la bokk ci ponk juróom yi nga xam ne noonu la julli nekkee ponk noonu la azaka nekkee ponk waaye noonu la aj màkka nekkee ponk waaye noonu la ñaari baatu seede yi nekkee ponk waaye koor nag noonu la nekkee ponk soxna Mariama mun naa ne koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom juróom-ñeenti koor la woor muy neuf koor rek la musa woor ci àddunaam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte Medinatul Munawwar la tàmbalee woor Màkka durant treize ans yi mu fa def yëpp woor waru ko fa li ko fa waroon nag mooy wax nit ñi tawxid lan mooy tawxid tawxid mooy ñu mu wax nit ñi ñu gëm yàlla jaamu yàlla yaakaar yàlla wéetal yàlla ginnaaw bi mu demee nag bu Medinatul Munawwar nag ci la lislaam yaatoo benn par benn ndànk par ndànk ci islaam ni mu yaatoo nag fala ko koor fekk ci atum ñaareel ca gàddaay ga maanaam l'islam bi mu amee ba am quatorze ba am quinze ans ci la koor door a wàcc moom yonent bi sallallahu alayhi wa li gën a bëri li mu woor ci koor soxna Mariama mooy moom vingt neuf jours la woor maanaam woor na juróom-ñetti woor waaye juróom-ñetti woor yëpp juróom-ñeenti woor la woor waaye juróom-ñetti weer yëpp moom juróom fukki fan ak juróom-ñeent maanaam vingt neuf la ko woor benn rekk la woor trente kon mun nga nekkoon weeru koor li gën a bëri moom benn jour rek la moo tax yàlla mu ne ayaama maadudaat ay fan yu rekk la. koor goog nag soxna Mariama farata la ci jullit boo xam ne am nga kàttan wéer nga lompoño dara dalu la koor googu dafa nekk ci yow farata nga woor ko ba koor gi mat sëkk. Mansour ku góor ki nga xamante ne moom wér na li ko war mooy mu woor weer wi yépp moom ku góor ki waaye xam nga ne jigéen moom mënul woor weer wi yépp am na ay gàllankoor yoo xam ne dana ko dal ca di biir weer wa wala ca tàmbale ba wala ca digg ba wala ca jeexitalu weer wa yu ci munti am ci yooyu soxna Mariama jigéen bu wooree ca yooyee dafa xaraam maanaam ñaari mbir nga nii Mansour bu ci jigéen mu wooree daa xaraam am jigéen bu wooree ci règle wala mu woor ci deretu wasin woor boobu dafay am bàkkaar danga gis yenn xale yu jigéen yi dañuy gis règle sa waaye nag ñu bugg ne ñoom dañoo gëm yàlla di ko nëbbaale nangam nangam déedéet yàlla waxul loolu daane jigéen joo xam ne gis nga règle dogal moo war ci yow boo dogee incha allah ba ñu wari boo amee jot nga fay ko ku jigéen gi nga xam am na deretu gësëng mooy deretu wësing moom tamit tànk setul du woor ñaari ñaatu xeetu jigéen ñi ma nag foofu buñ fa waree dafa xaram yàlla leen di bindal bàkkaar waaye yeneen ñaari jigéen a ngi nii ñoom bu ñu woorul duñu am bàkkaar waaye buñ mënee woor moo gën muy ban ban muy ku jigéen ki nga xam ne moom dafa ëmb war na lor ku jigéen kooku bu demee ci docteur mu ne ko loolee nga ëmb de bu fekkee da ngaa woor kat ndox mi nga xam ne war nga koo jox sa doom jooñ nga ëmb day manqué kon bul woor bul woor ku jigéen ki nga xam ne dafay nàmpal mu dem ci docteur mu ne ko nàmpal calcium yi nga xam ne moo ne ci sa meew mi boo wooree calcium yi dafay wàññeeku te mën na def jeexital ci xale bi mën na koo lor te borom xam-xam yi dañuy wax ne yaani six asixatu muqaddamun ala al adyan maanaam wér-gi-yaram lañu jiital ci diine ndax balaa nga naan naam danga fay nekk moom ku jigéen kooku mu ëmb wala muy nàmpal lislaam may na ko mu dog ba yeneen fan yi nga xam ne ñooy ñëw bu ko defee yeneen fan yooyu nga xam ne ñooy ñëw nag moom incha allahu taala bu ferelee wala mu imbi rek bu ko defee mën na mën na wori da ngay dégg nag soxna Mariama am jigéen ñoo xam ne ñu ne man sequma yàlla bor bu may leb ak moom ba di ko fay da ngay dégg ñu di ko wax. sama mbokk jigéen ko am ñaari bor ko ñaari boru weeru koor fayu ko soo waxee doo fay mun ah man de aw ma yàlla sequma ak yàlla lu may fay ak lu may sequma ak yàlla bor boo xam ne dama ko koy fay déedéet yow da ngaa dogoon da ngaa war a fay. gis nga nag boo xoolee nag ba sàggan ba kooru deux mille vingt quatre bii fekk deux mille vingt trois woon ba deux mille vingt quatre ñëw fekkaat la fi danga ngaa xam nga noonu la lislaam di teg da lay teg ne da ngay weer kooru deux mille vingt quatre bii danga koy woor. boo waree kóol 2024 ba pare nag kóoru 2023 bi nga xam ne da nga ko rate woon da koy woor waaye nag heure boo wooree dangay joxe leel da ngay joxe mudd parce que sàggan da sàggan kon Mansour koor gi bu ñu ko sàgganee la ponk la ci ponk lislaam yi juróom am na koo xam ne nag moom nee na yoo yaay moom du woor waaye day joxe ndogu am na ci nit ñi romb nit ñëpp waaye ñun de dañuy joxe ndogu duñu woor ah lislaam waxul joxe ndogu lislaam woor la képp koo xam ne gis nga weer wi wala ñu gis ko wala ñu gisal la ko wala ñu wax la la feeñ na bu dee jullit nga li war ci yow mooy woor waxuñ la waxuñ kenn na joxe ndogu yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun ey yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla faratal nañ ci yéen koor comme ni nga xam ne farata woon nañ ko ci xeet yi nga xam ne ñoo leen jiitu woon te xeet yooyu ñoo gënoon metti koor nangeen ngeen woor kutiba aleykum siyaam waxuñ ne kutiba aleykum joxe ndogu de waxul loolu de yàlla waxul ne farata na ci yéen ngeen joxe ndogu de daa ne farata ci yéen ngeen woor léegi nag soxna Mariama boo wooree nag ba pare xam nga woor nga ba pare yàlla dimbali na woor nga waaye ci biir woor kooku nag yow am nga yàlla may na la mën nga am nga lu mën a teral gan mën nga joxe ndogu am na koo xam ne nag moom woor na waaye amul lum ndogo foofa nag yow mën ngaa génne ca la la jox nag jox ko mu ndogu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo joxee kook mu ndogu am nga yoolu gu mel ni li mu am ci woor ba pare mu ànd ak yow sa yool sa yoolu koor gi te yàqul sa koor yàqul wooram gis nga lislaam nim nim nim nim neexee gis nga weer bi li tax lislaam andi ko mooy weeri promotion la Mansour benn jaamu yàlla boo ci jaamu yàlla yàlla defal la ko soixante nga mel ni jaamu nga yàlla soixante dix fois soixante dix farata benn la boo ci def Mansour yàlla defal la ko mel ni def nga farata kon xanaa weer wi weeru jàmm la waaye mu jël ci biir weer wi defal la ci nag benn guddi goo xam ne moo gën junni guddi waxu la toloon naa gune dafa ne moo gën xam moo gën moom xamoon mu toloon dafa ne moo gën junni guddi mu def ko mu nekk guddig laylatul xadri mu ngi ci biir weeru koor gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne awaluhu rahma mu ne fukki fan yu njëkk yi dizaine yu njëkk yi mu ne yërmande la ñu ne ko yeneen dizaine yu ci digg bi mu ne dizaine yu digg magfira la yàlla daf lay jéggal sa bàkkaar ñu ne ko yeneen yi ci tegu lan la mu ne yeneen yi moom yàlla daf lay goreel safara damay wax lu bëri ne la weeru koor fii koo ci gis muy ñambi ñambi di seytaane seytaane moom moom seytaane la parce que yàlla moom tënk na seytaane koo fi gis muy seytaane seytaane la moom seytaane la ndax yonent bi nee na ida jaat ramadan futixati abwaabu janna wa xuliqati abwaabu naar wa sufidati sayatin yàlla yonent bi nee na weeru koor bu jotee yàlla ubbi na buntu àjjana tëj buntu safara yi tënk seytaane koo fi gis nag muy def yëfu seytaane moom ci boppam mooy seytaane moom ci boppam mooy seytaane ndax yàlla nee na am na ñoo xam nit ñoo xam ne ay seytaane lañ am na jinne yoo xam ne ay seytaane lañ kon nañ góor góorlu ci koor gi góor góorlu bu baax a baax yéen ñi nga xam ne nag yéen ci campagne yi di ut na ngeen woor da ne ci campagne yi bu bugg a fàtte yàlla yàlla kenn du ko fàtte yàllaa jiitu campagne yàllaa jiitu politique yàllaa jiitu lépp ci loo mën a nekk ëllëg boo dee ci sa bàmmeel buñ la yee ne la ndax 2024 yaa doon campagne yàlla doo la laaj loolu dala na ndax 2024 wooroon nga macha allah laaj bi nga laaj am na solo mooy ñi nga xam ne dañuy woor te ñoom duñu xëdd noonu la ñuy maasala rek mu dem buñ ànd ak loolu yëpp julli na duñ ca julli benn dañuy bàyyi ba ndogu rek xam naa sekk la sant wala géy buñ paree door a fay yëpp door a lekkaat mooy daal boo wooree sa ngay di nelaw rek boo ndogoo door a génn doxi say soxla xam naa laaj bi loolu la. waaye nag gis nga soxna Mariama ma gàttal la nag gis nga koor nag moom lii rek moo koy dog koor li koy dog ñett kese la amul ñeent amul juróom amul juróom-ñeent mooy lekk te tey ko naan te tey ko sëy te tey ko yépp fokk te tey ko mu am lekk te tey ko naan te tey ko sëy te tey ko mooy dog koor leneen lu dul lii du dog koor waaye yonent bi nee na saxiru fa inna fi suxuuri baraka na ngeen xëdd ndax nekk na ci xëdd barke am na ñoo xam ne mënuñu lekk fajar waaye jugal rek nga naan ndox wala nga naan ñetti doomu tàndarma wala nga naan benn kaasu ndox wala nga jóg sax màggal xëdd bi waaye nag mu nelaw nag teewul am na koor de waaye nag sàggan na ba barke bu bëri raw na ko waaye am na nag am na yoolu koor ki nga xam ne na dafa woor waxtu yëpp julliwu ko am na koor soxna Mariama am na koor nag waaye nag am na bàkkaaru ku bàyyi julli ñaar yi bokkuñu yoon moom am na am na koor parce que koor mooy am imsaak nga bañ a lekk nga bañ a naan am na loola waaye nag moom am na bàkkaaru koo xam ne julliwul ca waxtu wa mooy fa waylu lil musallina alladina hum an salaatihim saahuna mooy ñi nga xam ne dañuy sàggane seen jullee julliwuñ ca waxtu wa waaye nag man li ma yaakaar mooy boo demee nag wax dëgg yàlla ba weer wu sell wu màgg wi nga ne da xiif te kenn rek moo tax yàlla moo tax wax dëgg yàlla nag julli yomb na waaw julli jëlul juróom benn minute jëlul juróom ñaari minute te yow fi nga toog am na leneen loo xam ne yaa ngi koy def mun na la jëlal une heure temps wala deux de temps te teewul yaa ngi koy def kon bokk jeunesse bi ngeen gën a góorgóorluwaat ci jaamu yàlla ngeen gën a góorgóorluwaat ci koor gi gën a bàyyiwaat xel yàlla ci li feeñ waaye gën a bàyyiwaat xel yàlla ci li nëbbu ndax yàlla moom nekkoon mu nga fa te dafa mos a jóge ñu war xel loolu bu baax a baax a baax ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax muy chaîne bii nga xam ne mooy mooy Mindiss TV euh, muy seen boo xam ne wax naa ne li gën a bëri moom bu ñu nee Mindiss rek fenn rek la muy Fatick maanaam moom Fatick lay symboliser ak doomi Fatick. weeru koor gi bu ñëwee wax dëgg yàlla seen programme yëpp dañ koy orienté jëmale ko ci koor gi waaye jëmale ko ci diine ak lu war diine kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax chaîne bi nga xam ne. weeru koor bu ñëwee ngeen dundal ko euh, selon seen kàttan ni ngeen mane dem ci xew xew diine yi waaye dem ci nitu diine yi wane li nga xam ne mooy diine ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen ñaanal yàlla bu baax a baax ci seen taxawaay yu am solo yooyu di leen wax ne nag wax dëgg yàlla yàgg nañ ko def mooy weeru koor bu jot ngeen ñu am jotaayu koor yu am solo euh, ci chaîne bi wax dëgg yàlla am jotaayu koor yoo xam ne euh, mbokk yi dinañ ci invité ñoo xam ne ay homme politique lañ ñi ay homme religieux lañ wala sax ñi nga xam ne ay sëriñ lañ ñi nga xam ne ay oustaz lañ euh, kenn ku nañu ñu liggéey bu rafet bi ngay liggéey ci dëkk bi bu ko defee ñu def ko émission boo xam ne émission yo am solo la ren nag am nañ innovation moo nañ ko defee seen locaux ñoom Mindiss TV euh, avec les nouvelles technologies yu am solo xam naa moom gajoon fi mu ne ne Ousmane mu ngi kontaan lool ndax matériel yu bees yi kon man oustaz Ousmane Diaw diwaan man tamit maa ngi leen jox rendez-vous ci émission yu màgg yu sell yooyu foofu ci Mindiss TV te xam ne incha allah euh, ñu nag ci Mindiss TV daal ndox la ak ak suukar la ak ak meew yëngal naan wala yëngal tuur te xam naa yëngal naan lay doon. kon soxna Mariama amati naa mbégte bu baax euh, dikk bi nga dëkkaat ci kër gi yow ak sëriñ suur ñu ngi leen di gërëmaat bu baax di leen sant di xam ne nag li duuf lu duuf ci nag bi xajandoowul ci cin li xam naa incha allah dañ koy yem fi euh, képp koo xam ne bëgg nga suite bi allah. nag ñu fekk ci émission boobu ñuy wax jotaayu koor ànd ak soxna Mariama ak ña muy àndal ca liggéey ba soxna Mariama ñu ngi am kontaan bu baax ñu ngi leen di gërëm di sant di sant PDG muy Ousmane Ndour Gadiwar ñu ngi koy gërëm bu baax di leen sant di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.